برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضه mbokk yi jamono yi Baol Média FM mi ngi lëkkaloog Baol Média FM 2 ñuy ànd ak yéen ci waxtaan yu am solo yii su ngeen ñu bëggee wéy di déglu nag ànd leen ak ñun ci suñu site bii di 3w point baolmedia point net wala 3w point mbacke baol point com wala sax ngeen ànd ak ñun ci tuleen rajo jërë ngeen jëf ci déglu bi usu ayatan la tura li xayri mujisatan baana peinture lépp saxaar gi la jaar ci te booba gaar baa nga yem fee ca gaar bu mag diggante mag euh, jumaa ji ñaari kilomètre la foofu it nga xam ni euh, sëñ Modou lu ko murid gërëm rek mu ndax bu fekkoon loolu li amul indi woon waaye ba fii faw dem waaye dana yàq loolu kon na suñu seetu koy fekke saa boo xamante ne bi nag saxaar gi ñëw indi matériel bi ñu taxawaat ca kaw jumaa ja Baol Média FM waa ko ñëw naa ca gaar ba mu du noom tam li ñu doon def kenn ku ne laf la nga doon def góor ak jigéen wax wuti wuti gaar te booba fa gaar bi ak fii ñaari kilomètre la waaye ñaari kilomètre yi mët na ëpp na fukki kilo ndax ganus la woon boo xam ne wi boo ci dugalee sa di dox day day nuur ba ci sa saw nga kooku neexu la yenoo dara di koo dox ba agsi waaye noonu lañ koy defee bu ñu demee kenn ku ne boo demee Baol Média FM boo attan yenu kenn te eh, saako yi di su ko toj faaw benn saako ngay lu di cinquante kilo moo nga yenu am na nag ñoo xam ne ci ñu bare bare bari ci góor ñi ñaari saako la ñu daan yenu jigéen ñi it am na ci ay jàmbaar yoo xam ni ku ñoo ku mel ni eh, Fat Ndiaye yàlla wala saygay ñaari saako la ñu daan yenu waaw xam ne boo dikkee da ngay laajteel dootoo man waaye boo ko waay yenn ko ba noppi toog tuuti delluwaat. Baol ba sëñ falu far xëccëraay bi mu ñëw ba fii ci euh, kër Sëñ Afe nga xam ne diggante bi jumaa yi genn wàllu kilomètre la. ngi ko def ci kii cinquante euh, soixante waaye foofu it. am ñaari euh, mbir mel ni mi moo di euh, li ko boo fa jógee jëm ci Baol Média FM montagne la xam nga yéeg di <laughs> yénoo di yéeg ba noppi suuf sax am am fa moo am fii waaw waaye dara kon loolu ci gàttal mooy li nga xam ni euh, mënees na ko wax ci lu jëm ci jumaa ji fondation bi soro bi ci boppam euh, soro bu mag bi ci boppam li ñu bari xamul Baol Média FM fi ñu toll dañoo defen dañ ko yan jumaa ji te daram la ci jumaa ji daram dañu ko gas ci suuf ba mu ëpp fukki mètre def ko form bi mu am tey juróom-ñetti côté juróom-ñetti poto ñoo ko téye yoo xam dañ ko calcul ba xam kenn bu ñoo xam la am àttan koy def am naa film bi xëy na waaye feer yi ñu ko doon def am na ñoo xam ne ay gëléem la ñu def ca <laughs> fee weñu gëléem lañ fa def dafa dëgg dijji dëgg yoo xam ne kenn musu ko gis liggéey nañ ko moom sotti gannaaw gi nag la ñu wut lu ko taqale ak jumaa ji waaye daraam yenuwul ci ndax yenuwul ci jumaa ji daraam yenuwul eh, eh, soroor yi it benn ñaari sor yi féete sow Baol Média FM. def ci loo xam ne mbirum sëriñ bi ndax benn bu ci ne ca digg ba def na ci seetar nepp ñeent fukki mètre cube ñeent fukki junni litre ci ndox bu ci ne yaa ngi nga xam ni dana am ñaari njariñ benn njariñ bi mooy da koy téye dëgëral ko beneen bi ci des itam moo di jàppukaay yi ndox mi. Baol Média FM. lay bàyyi ko ca soro yi lay bàyyi ko wàcc te bu fekkoon dul kon loolu kon ca jajëfaal la ñuy dem jënd fay machine dul jeex yu pomp ndox mi di ko indi waaye fi ndox moo demee ñu jàpp rek ñu ngi jóg sor bu mag bi moom rek moo am ci àdduna xaw ma léegi de waaye cooy jamono ba muy noppi ñu di ko indi booba moom ak benn jumaay bu nekk ca Bornéo ca asi euh, Baol Média euh, FM penko féete bëj Saalum moom rek moo fiy jumaay juma soxna am ascenseur moom dafa am ascenseur moom itam ascenseur mën ngaa jógee fii yéeg ci kaw ndax booba arche bi dafa xam ni yéeg ci du yomb ci mag ndax li ko tàmbalee ci escalier bi ci suuf booba ca kaw juróomi téeméeri marche la ak fukk ñett Baol Média FM ah, loolu alaaji ci gàttal mooy li nga xam ni euh, mënees na ko wax ci jëm ci jumaa ji moom mi sëñ Fallou nag xolom seddul nelawut lépp loolu ker ba mu ko inagale xam ne nag ndigal ko joxoon am Baol Média FM li ci des moo ko cee yokk sëñ Fallou benn wala ñaar ci meloom sax euh, moom neexut a xam kenn ku ne da ngay wax rek lañ ca xam waaye li nga xam ni moom bokk na ci li ma takk te ñu bari takk ko moo di moom ak wilaayam da ko jige woon lool. Baol Média FM. manees naa wax seen ne daawul tàggoog moom du guddi du te loolu firnde la moo di saa boo dikkee wax ko soxla. lu soxla sa mën di mel ak lu mu riir ak lu mu xóot-xóot baat ba mu lay jëkk tont rek moo ci am te du la négal bu suba du la négal ba ngoon du la xaar ma seet ko du la du ma di jugé kenn da wax rek baat ak la foo waxee ba noppi rek. Baol Média FM. la ma am loolu ah, yéen ñi jàng arab defe naa ni. ko gis bëri te lu mu doon kooku leneen li ci des moo di ak taalibeem lépp lu mu am ci sëriñ Touba gannaaw ni mu doon ci moom ba noppi taalibe ga ko Baol Média ndax dafa tegoon sëriñ bi foo xam ne fii kenn tegu ko ñëpp a ko teg fa moom fi mu ko tegoon kenn dafa nekk na fi bàyyi ko musul nungu kenn mës a dégg Cheikh Ahmadou ni doomi Sëñ Tuubaa la xalam xalam musul ko sax ku ko wax sax defe ne bëgg ko neex fekk na wax nga wala wala lu ko neex daa wax ne dañ tudd ko tudd turu Sëñ Tuubaa bi sax lu néew la ko daan wax ndax ba tey lu rëy moom la. Baol Média FM. moom mi ngi daan yem ci ku baax sang bi sëriñ bi borom baraag bi. fu mu teg tur wi walaqad sëriñ bi di léppam mu teg ko fu ne loola da ko wàcc ba agsi ci ñi nga xam ni ñooy njabootu sëriñ tàmbaleeg si Modou Moussa FM ñoom ñëpp ku ma ci gis da lay def ni sëriñ bi fa ma tegoon sëriñ bi ginnaaw bu sëriñ bi foofu la lay teg fonk la yëg la day dem ba mel ni sax laa ragal ndax sëriñ te loolu ñëpp la ci maase lool yu góor yi ak ñu jigéen booy seet sax ni ñu jigéen ñi la gën a fonk ay Baol Média FM ñoom def nañ ko sëriñ ndax ni mooy sa waay moom ay sëriñ la leen defal ki nga xam ne nag moom la ci gënoon a itewoo moo di soxna may ndax li mu nekk caat loolu li nga xam moom mujj ci sëriñ bi moo tax moom la ci gënoon <coughs> ba ku ne daan fi jaar Baol Média FM am na foo xam ne fii defante te soxna may euh, firndeel la ci ndax màggalam gii muy def di màggalu leetu xadara ci sëñ Fallu ko tàmbale moom màggal ci jëkk sëñ ñaari ganaar booba la togg ànd ak kenn ci jigéen ñi mu yar indil ko sëñ Fallu ñaari ganaar léegi defe naa Baolmedias FM mooy ganaar waaye liñ ci rey dégg ci ay xar ak i nag ak gëléem kenn xamul loolu ganaar yi moom dees du ko ah, sëriñ bi jaar moom foo xam ne fii kenn du ko du ma waaye xam naa ko sëñ bi xam na ko soxna may xam na ko ba soxna may ba ma ko ma saa daal dara mi da xam na secret bi moom Baolmedias FM taalibi googu gi nga xam ne moom la am sëriñ bi nag lu mu am ci sëriñ bi rek moo ko ba tax na moom Cheikh Ibra moom la defoon royukaayam maanaam kenn rek laay ñee ci taalibi. moo tax léppam sawoon ko Cheikh Ibra ko saw ndax ma nee na kooku dong la ñee ci taalibi ak taalibi bi àggoon na ci saa eh, bu ñu indee daayira di ko ko jëbal jox ko carnet bi nga xam ne ci lañ def ki nag ak ki gëléem kenn xamul ganaar yi moom dees du ko li Baol Média FM xam ne fii kenn du ko duma ko nett waaye xam naa ko sëñ bi xam na ko soxna may xam na ba soxna may ba ma commencé a daal dara mi da xam ne secret bi moom donc taalibi googu gi nga xam ne war na am ci sëriñ bi nag lu mu am ci sëriñ bi rek moo ko may tax na moom Cheikh Ibra Fall moom la defoon royukaayam nee na kenn rek laay ñee ci taalibi mooy Cheikh Ibra moo tax léppam sawoon ko Cheikh Ibra rek ko sawoon ndax Baol Média FM la ñee ci taalibi ak taalibi mi àggoon na ci saa bu ñu indi daayira di ko ko jébal jox ko carnet bi nga xam ne ci lañ def turi ñu ne ci daayira bi day daldi fab xalima ca bopp euh, tur ya mu def ci turam ni leen ci làkk luñ ciy joxe ñu ne nanga mu jox leen ñu fab loolu boole ko liñ koy joxe jox Baol Média FM nga xam ni euh, te taalibe googi ni ñu ko waxee te muy lu wér doo ko jaay sëriñ bi waaw ni tudd gi nga di di ma tudd weneen tur jaay naa la ko tey jim ki da nungul ma ko sëriñ bi nungul ko ko boo ko sëriñ bi nungulee ba ne moo ne ko nungal bi ma ko la kon nag ah, noonu ñi nga xam ne noo ngi tudde suñu ay taalibe war bi nungul na suñu taalibe ndax moom sëñ Fallou du def dara dara lu am la lu ma def rek am na lu ko waral te mosuma gis mu xëccal lenn lu bëgg a nekk taal bi sëñ loolu rek loolu daal mu bul daal kenn jiitu ko sëñ loolu moom moom lenn lu ne naa la ko bàyyil waaye taalibe gi moom moo la siy jiitu kon nag ah, nañ góorgóorlu te xam ni sant yàlla war nañu ci googanam diggante mag lu mel Baolmedias FM itam dafay loo xam ne lii am na euh, du ma ci mën a wax lu bari ndax euh, li li dafa nekk secret yoo xam ni duma ko wax tey du ko wax ëllëg waaye li wér daal moo di moom ñi fi nekkoon yor réew bi dañ ko xamoon teg ko foo xam ne fii it pour sore sore la te loolu jëkkewul ci ñii fi nekk rek diwaan yu tubaab bi fi newoon. Baol Média FM. ndax xam nañ ni dara mënut a dox te ci lu mu jàmbur loolu ne rek loolu daal yu yàqu ba tax na ñoom tubaab seen bopp lépp lu ñu ma saa bëgg a doxal ci réew mi dañu njëkk diisoog moom. ba am ci ak jubóom. wala bu ci ñu ci amul ñoo xam ci Baol Média ci meru ci waxumaa nag ah, ñi nga xam ni ñoo wutu tubaab yi loolu beneen waxtaan lay doon waaye li ci wér moo di ni ko waxee woon ci ak màggal te mën ko waxaat moo di la moo daan wax ni maay Sénégal lépp lu Sénégal am tey ci teranga ak ci jàmm. Baol Média FM. sëñ mën naa ko wax bu wér te li ci ma ci xam lépp nag mënuma ko wax waaye te ñoom ñoo réew mi xam nañu loolu itte yoo xam ni ji taal yooyu mas ko am wax ko ko da koy faj baatin lu luy ñaan faj da koy ñaan loo li jënti bu àdduna antu nañu ko bëgg bëgg mu bëgg taalibe ak yërëm gi ma leen yërëm ak ñeemante gi ma leen ñeemante tax na kenn mosu ko wax sa soxla mu demir ko te soxla soo ko wax feek fajul da ko yenu mel ni da ko yen ci boppam waaw day faju ah ñi nga xam ne dañu fi ñëw te àdduna bépp fii daan ñëw ah, di ko dis ndimbal kenn xamul mu taal li ma ci faj. Baol Média FM. mu ne su ko ci anam gone ci mën di jóge àgg na ci ñi dul julli sax da leen di dimbali ndax moom doomu aadama la fonk yërmande daam daam humanisme moom moo ko doxal da ko fonk doomu aadama. ba loolu nit ñëpp xamoon ni ko bu ma sàmm soxla ak koo mën di doon da ñëw ci moom bu dee loo xam ne ab lijjanti la da koy daal di lijjanti ceetu say. te amoon naw lay ndax ku dem ba jumaa ji nekk sa loxo nga di ko war a financé. Baol Média FM. waroon mënoon nga tey ko loo xam ne ah man dara kat man jumaa ji rek laa te muy dëgg waaye déedéet loolu nag mooy kéemaan gis nga xam ne kenn xamul lu mu doon ci àdduna ndax liggéey jumaa ji boole na ko ba mu jeex takk. te fangalu ko lenn li mu daan dimbali loolu loolu moo amul fenn lenn lu ma ko fangal amul doo ko wax mukk soxla moom la jumaa ji loola def na ko Baol Média FM nag ci maye nag ci ay woto maye tabax ko ci kër yóbbu koy nit màkk ma ni su ma ni su ndax kenn ku la nga ci xam nga xam waaye la nga ci xam mbooloo xam na lu loolu moo dimbali ñëpp euh, mbusalu liggéey rek loolu daal mooy mooy mooy euh, wax ji Baol Média FM mbay waaw waaw déet xam nga euh, ci boppam moom sëriñ bi ci boppam Baye Mbaye ah mosuma gis ma nekk ci xalaat. Baol Média FM. lenn dong nga tax ma doon koy jumaa ji lu mu jël dugal ji am ko jox bi jumaa bëgg nit ñi roy ko te xam ne lépp lu ma ne nit ña ne ca moo tax. mu laaj tubaaba ko Senghor jox ko tubaaba ndax tubaaba forêt classée la woon waaye Senghor ko jox euh, te boobu jubluwu si ndax moom aajoom fa yoon na ba noppi ñoo ñu noppi Baol Média FM waaye li mu jubloo woon mooy xeer nit ñi si liggéey ndax xam na ni bu liggéeyut wala bàyyi liggéeyu mbay réew mi yàqu te mbay ci boppam mbay ci boppam ko fonkoon ndax booba mbay fi ne loo xam ni mooy yor économie bi te moom dafa amoon jom ba nga xam ni bëggul kenn ko Baol kenn koo xam ne kii da ngay dem di liggéeyal kenn te xam ne dara mënu ko may lu liggéey te liggéey bi fi ne mooy mbay moo tax mbay la daan def ndax tu jot bu maanaam ba ma sa toll ci waxtu wi day jël rajo bi booba rajo xew télévision xew woote wax ni képp ko ne ci taax yi te def amoo fet lenn la fa loo xam ne liggéey bu wér la delloo ci àll ba bay Baol Média FM li ñuy wax exode rural naan dañ ko dañ koy xeex moo ko jëkk xeex boobu kenn xalaatu ko waaw kenn ku nekk ci taax yi muy Ndakaaru muy feneen na nga xam loo fay def lu la fa téye loo xam ni am liggéey bu boo ko amul teelul ca ca ndax suuf si moo yor àdduna Baol eh, bi taxawaayam ci jumaa jiit àggoon na ci saa bu ñu àggee ci war def liggéey bu rëy boo xam ne bii dañuy xëy war ko def ba jant bi so Baol Média FM sotti day bàyyi ko ci këram ñu indi ko pilaan wi ci jumaa ji mu sës ko ci wenn kanu yendu fa ba jant so te loolu mën na la ko ceebañ fekk bu ko defee nag nit ñi bëgg a seen bopp ndax mu bu xasee toog lu waay def xeeb ko <laughs> Baolmedias FM تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Baol Média FM فله Baol Média FM